Quand on est une jeune maman, on n'est pas toujours sûr de ses gestes. Choisir les meilleurs soins pour son bébé est parfois difficile. Moi, j'ai demandé conseil à une puéricultrice. Elle m'a recommandé BabyMed. Des soins hypoallergéniques adaptés à la peau fragile et sensible de mon bébé. Une gamme complète pour que chaque toilette soit un moment de tendresse qui participe à son bien-être. BabyMed, son premier soin أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد المنان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ثم صلاته وسلامه على أفضل الخلائق بالإطلاق شفيع العمة كاشف الغمة يوم القيامة باتفاق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaa'ihi wa man nahaja nahjahum wastanna bi sunnatihi waqtada bihi wa bihim bi ixsaani ila yawmi ddin mbokki jullit yi mbokki Ali Imran TV asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi nuyu mboolem téléspectateur Ali Imran TV tabaarakallahu di leen ziyaare di leen baalu xaq di leen xaq ci koor gi di ñaan yàlla yàlla bu mu nekk suñu mujj koor yal yàlla nangul ñu mboolem nawaafilul xayr yiñ ci def ak jaamu yàlla yiñ ci def yépp yal na yàlla boole ñu ko nangul bi jaay saydina muhammad yàlla doolu ñëw dëgëral bañ gën a fonk jaamu yàlla gën koo bëgg te di ko def ca nam ko bëggee moom yàlla moytu koo def ci niñ ko bëggee bi jaay saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu ñu ngi nuyu sama cameraman bii ma jàkkaarloog si Abdallah maa ngi koy nuyu baax tabarakallahu di ko ziar di wax ne xam naa ne koor gi daf laa jàpp comme man ndax ni ma la gisee nii moom dafa mel ni daa nga gënoon nga am activité bu bokkut ak ni nga mel nii waaye tabaarakallaahu la alxuraan waxoon ay fan yu néew la yu ñuy compter rek incha allah yow ak si siise yi moom dafa mel ni ñemewu leen koor waaye du yàgg muñ leen rek incha allah rabbi waaw <laughs> ah, muñ rek muñ rek incha allah yàlla waxoon na ci alxuraan ne yéen ñi nga xam da ngeen dëkkee muñ ah seen ak faykat du darlu dama leen di rek yéen dagg naa leen du fi jàll leen waaw tabaarakallah am na sax benn boroom xam-xam bu ma gis mu fiiri baat boo xam xam naa dana dëppoog seen wax ji le astaxinoo bi sabri wa salaati moom dafa ne bi sabri googu moom koor la ko la ko la ko firee dimbandikoo leen ci koor ak julli moom noonu la ko fire te boroom xam-xam bu mag la ci boo duggee ci tafaasir yi di ko gis incha allah rabbi yàlla boole ñu kàttanal bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ mën a teg suñu tànk ci jaamu yàlla teg ko it ci jaamu yàlla goo xam gu dëppoog yàlla la ca nam ko bëggee bañ a dëppoog suñu bakkan ndax kat léeg-léeg gis koo xamante ni bakkanam dong lay jaamu ak lu mën a kaa na ko nettali te moom du wax luy dañ afaraayta man ittaxasa ilaahu ah, waaw am na ñu xam seen bakkan rek la ñu jaamu jaamu sa bakkan nag moom la ci sañ sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu waxoon rek moo ci nekk bàyyi basak baara waxoon na ne maam sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu waxoon na ne moytandiku leen jaamu seen bakkan ak seytaane ñoom ñaar day xeebuñu cib jullit xeebuñu cib jaam donte bi légat la allahu akbar moom mu baax ma loolu la waxoon de ah, moo tax boo demee ci xikam nu ata illah téere bu am solo la téere la boo xamante ni bu mat a bàyyi xel la tabaarakallaa ci promo boobu ma koy defal pour taalibe yi xam ko war koo bàyyi xel rek ndeysaan xikam nu ata illah borom téere dafa wax lu am solo daf ne man yàlla maa ngi nii sa bunt bi taxaw waaye maa ngi lay géñal ne ku naqaree perte loola ñu ne ko lu tax mu ne yaakaaruma kenn ku dul yàlla mu ko ah mu ne mu ne ko yàlla maa ngi sa bunt bi taxaw waaye ku nang naqare bëccëngal la ñu ne ko lu tax mu ne ndax wakkirluuma ci ku dul yàlla sukkandiku ma ci ku dul yàlla nga dégg jël mooy tàqalikoon ak sama bakkan tàqalikoon ak seytaane man yàlla rek laa sukkandiku moo tax niixumaa toroxal ndax ku wàkkilu ci yàlla wa man tawakkal alallaahi yàlla dooy na ko sëkk ndax kat yàlla moom ay mbiram dafa mat sëkk dafa doy sëkk allahu akbar loolu la borom xikam état illaa i wax moo tax sax ndeysaan ci sarxa ba daf ko am na ko koy dabaatal di ko wax ne ko ah yow de li nga wax ni marta bala boo xam ne wa rasiquna fil ñoo ko daan am ah man de yàlla may na ma ko wallahi ndeysaan yàlla na yàlla boole ñu ko defal ñëpp bi jaay sayyidina muhammad waxoon na ci beneen waxit moom ikim na ataa illaahi nee na dëgmal xar kanamu yàlla ga doy na ma sëkk yitte jàkkaaroog subhaanahu wa taala mal xaar kanam nga te dootuma ko wan ginnaaw doy na ma sëkk yitte mu ne lépp lu ñu ma mën a taajal sama kanam lu dul yàlla safatuma dara loolu li mu wax mooy fase na àdduna ndax góor gu baax daana wax ne maam Mansour daana wax ne afiq fa ma haasihi dunia siwa kadari nee xil bàyyil xel àdduna du dara poñet la rek wallahi ndeysaan àdduna ay caaxaani kese la te xadis siiw na lool wala bëgg waxu lay ndeysaan wax arab bu siiw lool bu ñuy faral di wax ne nanga xam ne aljanna yàlla ja ña ngi ko peegee ñu ngi ko wëralee ay naqar na la wóor ne safara yàlla sa ñu ngi ko wëree ay mbégte soo toppee sa bànneex rek di ci nuur nuur sa ko bakkan fa mu lay mujjal mujj gu ñaaw lay lay mujjal yàlla na ci yàlla musal mu ne soo toppee naqar yi nag soo toppee yu jafe-jafe yu métti métti yàgg-yàgg boo ko bëttee dugg ci aljanna moo tax mu ne aljanna ko xuffat biha peegeef nañ ko ci lan ci ay nattu qanaatiral mexan kon nag góor ba góorgóorlu ba bàyyi xel ne li ngay dagaankat pour nga am ko dangay sonn doy na ci misaal xoolal koor rek ni mu jafee ci ñenn ñi xëy ba ngoon jot lekkuloo naanuloo te bu mu doon ci yooyu mën nga koo def te nit du ci teg bët nga bàyyi xel loolu yépp rek dëgmal yàlla rek tax nga di ko def kon ngay xam nga ne kon lu baax yombul kon góor góorgóorlu la góor ko waxoon afiq fa ma haasihi dunya si waa kadarin fa ma haasihi dunya bi daa imatin adduna du sax adduna nëxët kese la la baaxoon jàll na kon kat tasawwat minha jéemala yóbbul wut yóbbal wut loo parasant ci kanam yàlla jéemala wut yóbbal boo parasant ci kanam yàlla wut yóbbal nag bëri na bokk na ca loo xam daf la jàpp yow mooy say jaamu yàlla bokk na ci loo xam jaamu yàlla comme dafa dox sa diggante yow ak beneen mbokkum jullit luy loolu léeg-léeg nga leexal sa mbokkam jullit it amu taam léeg-léeg nga leexal sa mbokkam jullit leexal googu nga leexal sa mbokkam jullit te yàlla rek tax jaamu yàlla la waaye yaa ngi ko defee ci keneen léeg-léeg nga sàmmal nit ab jaram léeg-léeg nga sàmmal sa mbokkam jullit ab jaram sàmm nga koy sàmmal ab jaram xeet la ci jaamu yàlla góor góorgóorlu di jéem a rafetal say jukko góorgóorlu jéem a rafetal say jukko lépp luy lu ñaaw nga tàqale ko sa bopp xeet la ci jaamu yàlla la ndax yonent salaa salaam waxoon na ne yàlla wax ci xadis xursi ne képp ko xam def nga benn paa jéegu nga benn jéego jëm ci man yàlla benn ci tàqaliko jukko yu ñaaw benn ci jéem a góorgóorlu sax ci lu rafet jéem di góorgóorlu digle topp sunna ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen yooyu yëpp ay jéego la yoo xam nit dina koy def jëmmi ko ci yàlla mu ne nag ko def benn jéego jëm ci man yàlla man yàlla ma def ñaari jéegoo jëm ci yow soo waaxoo man yàlla ma daw kon kay xam nga ne kon yàlla ku neex a wuti la góor ga waxoon sa waxam ja nag ne xiqil ci àdduna bi ndax àdduna du sax àdduna dafay tàqali ko moom te noo mel yow noo mel yow ak loo mën a am ba tax nga nuur ci àdduna ba tax nga woon ko ginnaaw nit amoon na lu ko rëy lu ko ëpp waaye teewu rek àdduna daf ko mujj toroxal moo tax genn benn suñ benn mbokk ustaas bu baax Baar Omar Ndiaye daana wax ju am solo daana wax ne lu sa xale lu góor dëgër dëgër ak lu mu rafet rafet rafet ba tax nga bëgg ngoro àdduna am na ku la gënoon a jekku jamono gën laa jekku suti gën laa rafet situation fuuf waaye tiwul ba mu raf ba mu ngoro àdduna fa mu mujjee mooy àdduna daf ko mujj torxal rek kon kenn ku ci nekk na ci bàyyi xel booxuñ na dañ koy fase directement wala bàyyi ko rek définitivement ndax kat alxuraan waxoon na ne bul fàtte na am nga cër ci àdduna te doxal ko te yonent sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis ne ihmali dunyaaka euh, ka annaka taisu jàppal àdduna góor góor góorgóorlu ci liggéey ba mel ni yow dootoo fi jóg mukk xam nga ne kat lay baax fële fii lañ ko mën a liggéeyee nit ki kat la koy baaxal ci yowmal qiyaama alaaxira fii ci àddunaam la koy liggéeyee kon kay taxut ay déggin lañ bëgg a wax waaye dooxut ne dañ na rek da ngay àdduna maanaam baadab sax bu ñu ko demee ci mufassiruuna yi surtout ci fànn mi ñu tuddee tasawuf am lañ tuddee ak zuhud lu bokkut ak ñun niñ ko jàppee man yonent sallallahu alayhi nag liggéeyal ci àdduna ba jàpp ne dootoo dee waxmal li axraaka ka tax a xadan mooy jàppal di def sa yu baax yoo xam yaa ngi koy dawal ci biir bàmmeel di ko liggéey pour mu jëm yowmal xiyaam mu mel ni ne yow dañ ne la dar ñeent nit ci nga nekk mu mel ni yow yaa ngi ci temps bu mujj ci àdduna kon kat góor góorlu ko bàyyi ko xel jéem ci liggéey luy defar sa àllaaxira bañ cee defar loo xam day sànk sa àllaaxira Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu waxoon na ne képp ko xam jaay nga sa àllaaxira jëndee ko àdduna ëllëg yowmal xiyaam da nga ah foofu de rëccu du fa jariñ foofu moom rëccu du fa jariñ fii ci àdduna sax léeg-léeg rëccu fi ñàkk fay jariñ léeg-léeg rëccu ñàkk fay jariñ waxu naa nag yowmal qiyaamati foofu moom rëccu du fa jariñ foofu moom ko xas ñëw rek mm, tabaarakallaahu ñëw nga moo tax ba saxaabatu kiraam yi sallallaahu alayhi wa leen question bu ne xam ngeen ndax ki perte dëgg al muflis xam ngeen mooy kan mooy ki ñu sosiir xam ngeen mooy kan ah, loolu de mooy ki yoreel nit dara ah, fay loo ko mu ñu sosiir la nangam nangam nangam ah waaye yowmal xiyaam de du fa loolu mu ne ko ah mu ne ko déedéet mu ne ko yowmal xiyaam mooy ku fa ñëw fekk tegoon nga ci deri gor yu baax yi wax ju ñaaw xasoon nga kii saaga nga kii tuumaal nga kii def nga nangam ñu jël seen tiyaaba yooyu sa tiyaaba yooyu faye leen ko ba nga nee ba jeexal amatoo leneen loo dese ñu jël seen yu bon xëpp la ko mën ne ko ndax fii ci àdduna ku liggéey liggéeyoon bañ def la ko doo mën a liggéey mu ne ko ah, ko yowmal xiyaam nag liggéeyat amu fa ba fa xasee perte rek perte nga yàlla na yàlla boole ñu dimbale ba bu ñu perte yowmal xiyaamati li yàlla digle ci weeru koor yi ci tiyaaba ak yiw ak yu baax yal na yàlla boole ñu ko defal defal ko bépp jullit ñi góor góorgóorlu nag koor gi nu mu gën a jàllee da ngaa war a yokk say nawafi Cheikh Abdallah koor mu gën a yokk gën a jàll da ngaa war a yokk say naafila bul def li xew léegi nga xamante ni jàkk yaa ngi commencé di vidd ndax njëlbeen gi kat jàkk yi commencé woon nay fees léeg-léeg sax boo bëggee dugg jàkk ji fu nga jaar dugg dafay të waaye fi mu toll nii commencé nay vidd bu baax waaye teel na nañ yokk góorlu rek weer yàggut alxuraan ne woon na koor ay fan yu ñuy lim la ay fan yu néew la ay fan yu ñu compté la comme ay fan yu néew la nag fan yu néew yàggul loolu de moom foo ko déggee ci wolof rek xam na loolu bariwul nañu góor-góorlu waat gën a yokkaat suñu jaamu yàlla kenn ku ci nekk na nga jàpp ne rek fii ma toll kat li may wut dëgg fi laa ko war a amee bis bu ñëw rek jàppal loolu bis boo ooree ba ngoon jot rek jàppal ne tey sama kooru tey gii kat baax na loolu waaye gu suba gi mooy dàq gu suba gi ci laa war a amee li ma war a am lépp gu suba gu ñëwee jàppal noonu ba baa woor wi di jeex te ngeen jug góorlu ci nag fekk suñuy làmmiñ ndax yonentu sallallahu waxoon na ne kat yàlla amul soxla ci koo xamante ni danga bàyyi lekk ak naan te fekk bàyyi wuloo mbiri caaxaan hmm? yàlla ka nee yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na ku bàyyiwut ay caaxaan ko fréquente yàlla amul soxla ci bàyyi nga bàyyi lekk naan kon góorgóorlu bu baax a baax a baax bàyyi lépp luy tuddoog caaxaan ndax jaamu yàlla gii jaamu yàlla gu naqaree tirise la jaamu yàlla gu naqaree njistal la moom def ko rek mbaa nga tàqali ko moom la moo tax tabaarakallaa yàlla na yàlla boole ñu dimbale euh, ngi nuyu tabaarakallaa sama caméraman bii ma jàkkaaru si Abdallah di nuyu tabaarakallaa Pape Doudou ak waaris yi yëpp tabaarakallaa di nuyu équipe technique bi nga xam ñoo nekk ci Ali Imran TV wa ala rasihim ñu ngi koy nuyu bu baax tabaarakallaa di ko masawu coono ci démarche yi ak tabaarakallaa yëngu yi waaye yëpp aw yiw la yëngutu ci biir diine moom pertement amu ci na yàlla boole ñu ko dimbale boole ñu dimbale kàttanal ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanam googu muy répété fu mu toll rek ah yal na yàlla defal ñu ko defal leen ko defal ko yëpp jullit ndax ñaan la goo xam ne njëndal gu am solo la ndax waykatu arab ba waxoon na ne ku ku sax ci mbir te way ca rek bu yàggee mu ubbi waaw moo tax kon yàgg ci def ciy baax lool waaye comme mu ngi ko yàgg ñaan tabaarakallaahu lu bëree bëri ñi nga am yaakaar ne yàlla dana leen ko defal di nuyu tabaarakallaahu Oustaz Dieng ñoom seex Dieng ñoom tabaarakallaahu ñoom Mbàkke ñëpp ñu ngi leen di ziar tabaarakallaahu in

Une gamme complète pour que chaque toilette soit un moment de tendresse qui participe à son bien-être. BabyMed, son premier soin expert.